di leen di waa ñu ñu ñaawal ba lii benn ngeen mais man bon ce qui me pose problème est-ce que c'est l'argent qui est la solution parce que force force bi wax mooy force fond bi. c'est-à-dire qu'il y a quinze millions d'habitants. y a quinze millions impactés xaalis du xaalis mooy solution chaque fois. c'est-à-dire qu'il faudrait que képp muy wàllum sport bi. Uh-huh. environnement santé vocation nekkul képp wax rek dala war a yëkkati xaalis dox ko non mm-hmm. Mm-hmm. l'argent ne peut pas régler les solutions mm-hmm. mais il faudrait que ñu toog waxtaan mën a génne une solution boo xamante ne ça va être efficace moi c'est ça que je pense c'est-à-dire que on est faible amuñu xaalis Sénégal amuñu xaalis sport tey jii ak santé yaakaar naa ni loolu moo war a doxal réew mais mais bu fekkee ne sport bi kenn fa faalewu ko mënul dox mais par rapport ak force fond je di encore une fois yàgg naa ko ko fépp. c'est pas o qui peut régler ça. Mhm. Euh, dama lay dama ci ànd ak yow ci lenn la yow xanaa déggoo ma man nee naa la euh, waxtaan boobu nga wax pour mu saytuwaat loolu mooy indi xaalis. xam nga souvent nit yi dañuy dégg bu may wax dañ ma koy critiquer mais man xam nga man damay nangu critique. Mhm. waaw euh, je ne suis pas allergique kii waaw xam nga comme comme ñenn ñi dama ne. man j'ai pas dit j'ai pas dit que l'état du Sénégal dafa war a jël ci budget bi. jël maanaam lépp jox ko sport waxuma loolu. dama ne dafa am benn politique sportive boo xam ne moom la ñuy teg. buñ ko tegee léegi léegi nag day am des mécènes maanaam euh, day am partenariat privé public boo xam ne day ñëw. surtout man loolu laay wax. waaw c'est important nga man néew ma euh, pour ñu jël euh, non non mm-hmm. euh, partenariat yooyu ngay gis waaw c'est en France mm-hmm. mais yow en France mm-hmm. l'état français bu la waxee bu ñu la waxee France li muy dugal ci sport mais bariwul c'est minime oui c'est minime waaw mais privé. merci partenariat ah, ah, bi. moom moo indi ah, loolu. moo tax tey jii ngay dégg. maanaam kii ñoo ay club waaw mais tey jii fii boo fi jëndee club dee nga. dee nga boo fi jëndee club à perte lay doon. da ngay dugal sa xaaj et alors que. Euh, ñii euh, ñi jënd PSG. Euh, ki ko moom Chelsea. Abramovich. ñooñu. dañoo ñëw jënd mais ñu ngi gagné. waaw de. da nga def dañoo jënd moom rek toog noonu. dañoo kii di gagné. di di am mais fii fii Cheikh Seck Jaraaf lu muy gagné. dara LD investir. il met il met deux cent millions chaque année. ci club bi. am na lu mu gagné zéro. Babacar Ndiaye. Tëngéej football club. il met cent millions. am la lu mu gagné zéro. Djibril Wade ainsi pareil. ñi yore équipe basket yi ñi yore équipe handball yi judo ñoom ñëpp pareil ils mettent de l'argent sans gagner loolu la lay wax dama ne la y a une politique sportive boo xam ne dañ ko wax bii nekk fii bii sa c'est inexistant parce que Euh, maanaam euh, euh, adapté wul ak wu aujourd'hui c'est important réalité wu tey jii daf ko dépassé mooy amateurisme mooy le bénévolat man su ma le bénévolat dans le sport ça me fait mal au cœur ah, ça n'existe plus waxutul exister dans le sport on doit dépasser le bénévolat ci leneen ci beneen côté sport lay nekk mais nekkul ci le sport de haut niveau soit on dit on est on fait le haut niveau ou bien on laisse d'accord ñu def euh, ñu def wala ñu bàyyi et yaakaar naa ni que dinañ def parce que nag lu jëmale sport bi kanam rek yaakaar naa ne moo leen fi tax a toog te xam naa ne ñu bëri noonu lañ ko yaakaaree donc jërëjëf. Macky Sall ne eh, Macky Sall il faut ñu wax ko de. que gars yi jotaguñu xaalisu Covid bi. d' accord El Hadj Macky Sall gars yi jotaguñu xaalisu Covid bi. man <laughs> mooy daal bu baax a baax ak euh, borom këram man maa personnellement euh, ñu dem jëli suñu rubrique environnement. <laughs> ngi noonu maa ngi nuyu Alaaji Mataba bu baax ministre des sports bu mag bi nuyu naa ko eh, Kaja. Uh-huh. ñu daal di la bàyyi dugg ci biir waxtaan bi koppar amu fa. Kaja laa yor na. def ay résultats parce la bàyyi ko koppar fu mu bëri koppar fu mu amul moo bëri fii si dëkk bi. secteur boo laal ñu ngi jooy koppar. Mm-hmm. léegi bàyyi ñu wax nga ko environnement bi parce que ñu amul koppar tamit ñu mën a am environnement bu.